yàlla dimbali ma dañ maa refoulé de dañ maa indi ci dëkk bi ne terroriste la ma ñëw ci dëkk bi ñu boole maag ay nit pour ñu enquête nee nañ xaw ma dañ doon enquête xaw ma dañ doon taaxuraan ñu def seen enquête ba pare fekk fa zéro ñu bàyyi ma ci ay condition yu wóor ne ma toppuñu la dara ma génn ay ministre de l'intérieur xaw ma ay ministre de la justice yu nilaar naan gosse bi dañ koo bàyyi rek xam nga liberté provisoire xaw ma naka lañ koy waxe mooy leen yi ngay bàyyi nit ki liberté provisoire mu am mandat dépôt du dëgg ah man maître assan Dia mooy sama turandoo je connais mes droits xam naa ne nilaar laa comme ni ko ay waa kër ma yuuxu nduur yi wax juuf yow yaa ma déclaré guerre nag pap Diouf la wax pap Diouf doomu Càll Ñing ak Cheikh Diouf les meriti di Senegal, man duma meriti, man top ma Cheikh Amar pour alal man man Assane Diouf top ma Cheikh Amar ngir alal Cheikh dama bokk ak mom ñaari mam dama bokk ak mom ñaari mam dama bokk ci Ndate gey ak Faati ba pare bokk ci Boursine Coumba fen Diouf muy luy wóor ak soxna Faati ak maam sàmba juuf man Cheikh su ma neexee ma ne sama doomu nijaay su ma neexee ma ne sama jarbaat comme ni ma koy waxe siidi Amar Bilal Amar Abdou Amar ak Modou Mamoun Amar ak Mbay Amar su ma neexee ma ne sama doomu nijaay suman ma mané sama jarbat jarbat gën ma neex nak mané sama jarbat ba paré jarbat mak nijaayam ba cheikh cheikh amar cheikh talib serigne salew nga bu ëllëgé bu la seen serigne cheikh woowatee jox la liggéey wol bay fall yi wol bay fall yi mais lu wo ma riti gi ma riti gi xolal riti rek ma riiti gi riiti rekk bu ñu gisatu lu ñu riiti dootoo leen gis sa yoon Cheikh yow yaay taalibe Serigne Saliou di taalibe maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan ndaxte rombuloo ko Cheikh yow yaay taalibe Serigne Saliou yow la sëriñ Cheikh bu sëñ saaliw woo jël liggéey teg ko sa loxo.